tàggatoo loo xam ne ne xëy na euh, danañ ko mën a mu nekk loo xam ne moom la ñu mujjantilee jotaay bi ngir ñu mën a tàggatoo incha allahu taala ba beneen jamono. waaw xam naa li ma bëgg a tàggatu daal. Mhm. mooy wane ne mhm. mhm. na wax muy wax ju wax ju wér. nee képp ku aju ci man. na xam xam-xam wér ne man sëñ Tuubaa. laa azinu muridan illa ala ma yanfaxu fil xaali. aw fil maali aw xumaa maxan du digal ab murit lu dul lu koy jëriñ àddina wala lu koy jëriñ àllaaxira wala lu koy jëriñ àddina ak àllaaxira man sëñ tubaa ubi ànd nii laa axuun ahadan man sëñ tubaa du ma war kenn wala udxiluhu fi maa yudurruhu ci lu koy lor mu ne ku sàkku ci man nag maa yusiluhu ilallaahi taala waafaqtuhu ku ñëw sàkku ci man ngir bëgg àgg àgg ci yàlla hmm. ma ànd ak yow ci loolu waaye waman talaba mi nii maa yan fanxu doonal wusuli waa faxtuhu ku ñëw am loo sàkku ci man te bëggu àgg ci yàlla àddina kese rek nga bëgg ci man hmm. ma jox la àddina te téye sama yëf waaye waman talaba nii nag waman talaba mi nii maa yadruhu xaalaftuhu nee na ku ñëw ci man nag di sàkku ci yow loo xam ne sa loraange la nee na ma wuuteeg yow du ma ànd ak yow mukk ci loolu ndax su ma ànd ak yow ci loolu dama laa war te yàlla nañ ci yàlla musal hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nee na ku sàkku yàlla. dana noppalu noppal ñeneen. nee na ku sàkkulul yàlla. dana sonn dana sonle ku la tegtal lu dul yàlla sonal na la lor na la. ku la mm-hmm. tegtal yàlla jariñ na la euh, noppal na la. kon nee na mbir bi dëgg dëgg dëgg. mooy sàkku yàlla ak tegtale ci yàlla. sëñ bi it lim ñu digal mooy. jub. wax na ko fu bari wala si moom man laa yasaaru habida li rabbi ila xaayidan ila huda jub nag ñaari baati orof la jiib ak baax saa yoo jàppee lu baax bàyyi bon kenn gënatu la ak jub ku bëgg a mucc da muñ muñ ak mucc ñoo bokk nañu leen bindee ku muñ rek mucc wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi jërëjëf